buur bi subhaanahu wa taala di julli ci yonentem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun fii ci seen youtube les meilleurs secrets di jégalu fan yépp defuñu vidéo lu ko waral mooy yitte jamono ji ak xat-xat yi tey nag nu fas yéene dellusiwaat ak yéen ci benn nob bu xam ne nob bu am solo secret bu nopp bu yéeme lool muy muy bii ngeen di gis moom ngeen di bind euh, moom nag ñetti yoon nga koy bind ki nga xam ne nag mooy taalib bi turam mooy féete ci kaw bés bu nekk rek foofu ñu bind ismuka ismuka mooy votre nom votre nom ismuka fa ismuka bi bokkul ci xaatim bi waaye dañ lay jox exemple ne la sa tur foofu la war a nekk kon soo koy bind bul bind ismuka mais xamal ne foofu sa tur moo ci war a nekk yow muy sàkku taalib soo ko déggee mooy kiy sàkku ki ñuy sàkku nag mooy ismuha aw ismuhu mooy turam mooy nekk ci suuf saa su nekk rek taalib bi kiy sàkku foo ko fekk moom la turam di féete kaw ki ñuy sakku ak topp tolo moy fête ci suuf nga bind ko ñetti yoon inshallah allah euh, benn bi dang koy takk ci sa yaram def ko ndomb wala téere bindaat beneen sangoo ko bindaat beneen ko ci sa néeg noble bu buy ci mahabba allah ñu laabiré leen ko bu ko defee ne képp koo xam ne danga bëgg yow ci sa jëmm ñu defaral la yeneen i noob yoo xam ne euh, yu wuute la ak kii mën nga ñoo woo incha allah am na ci benn boo xam ne du tudd aw turam sax ndax tur wi ñu bare bëree bari ñu ngi koy dégg waaye xamuñu nuñ koy defee. bari nañu bari bari ñu ko dégg te xamul ñu ngi koy defé bo xamné ne mag ñi mag ñi daan nañ ci defé lu ne mag ñi daan nañ ci def lu ne muy nopp bu yéeme lool boo xam ne fa tabarakallah macha allah képp ku ko am rek sa càkkuteef suñ borom daan la ko defal ku bëgg boobu tamit da nga ñuy woo PV incha allah ñu jàppale la ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh